Kalla nuyu nañ ko ak doomam jooju nga xam ne moom mooy Cheikh Oumar di am mbégte contentement ci tous les mareyeurs yi nga xam ñu nekk foofu ca Foundiougne waaye di nuyu waa Liberté 4 ñoom Oulay Diallo Oulimata Diaw Kiné Diaw Ndeye Fatou Gueye ca Liberté 4 di am mbégte ci Rama Iyane Thiam Diakhaté la grande dame de Cœur d'Or ma koy nuyu tamit bu baax nag euh, la grande dame de Cœur d'Or ma koy nuyu euh, grande euh, de Cœur d'Or ma koy ak association boobu nga xam ne jàppale ak jigéen ñi ko tax a jóg rek ak xale yi di nuyu tamit papapam ñoo ngi ko Ahmed Iyane Thiam El Hadj Ahmed Iyane Thiam ak yaayam Adja Khar Adja Khady Euh, euh, Khady Sarr bi nga xam ne nag euh, moom mooy yaayu Rama Iyane Thiam nuyu naa tamit Banda Diakhaté di borom waaye di nuyu toute la population de Goudi ci gàmmu gi nga xam ne le 28 février samedi le 1er mars ziara Serigne Mounirou Sarr ba ca Goudi foofu kër Mansour Sarr ñuy wax nag El Hadj Obilal fa teew ak équipe gam yëpp ñu daal di koy teewee ñaan yooyu nga xam ne nag dina am solo trop di ko ziar moom Serigne Mansour Sarr waaye tamit di am mbégte contentement ci Serigne chef religieux à Sicap Mbao ak képp koo xam ne yaa ngi dëkk ca Sicap Mbao ñoom Nicole Bassène rue 9 angle 11 Medina Mama Anthou ñoom Zanim ñoom ñëpp ca rue 11 nuyu nañ leen di bëgg tamit bu baax ci ki nga xam ne moom mooy euh, Mohamed Bara boulangerie Mandela waaye tamit Pape Lam nee na ma Kouthia euh, dugg naa fi nga xam ne mooy marché jàmm gën mais ñoom ñëpp bu heure bi jotee dañuy seetaan émission Kouthia Show kon waa marché jàmm gën foofu nag euh, ca jàmm gën ak jaksaaw yëpp nuyu nañ leen li ñuy def rek mooy seeti Macky Sall ak ki nga xam ne moom mooy Farba Ngom Farba Ngom gom nag démb am na ko juum ci santam sant na ko ba Senghor waaye waa ji dootu ko dollati loolu moom far ba dina ci ñëwaat léegi bu dugusee ni mu toroxalee waa ji ba waa ji génn daa dee daw foofu yëpp Farba dina ci jaar waaye far ba Ngom tamit moo introduire président de la République am na lu mu foo wax loo xam ne nag loolu mooy coow ba tey Ziguinchor actuellement nii nag coow la far euh, Farba Ngom wax foofu neex na président war a neex ko bu la ko bëggee xam na ngeen ko jàpp jigéen ñu Casamance tamit daa dee togg ceebu Casamance ndax leen ceebu waalo rek moo euh, du ceebu waalo rek mu am am na ceebu Casamance mbootaayu jigéen ñi nekk Casamance yépp rawatina marieuse jigéen ñi nga xam ne dañoo dem ba ci Cheikh Kanté mu jox leen jën gu mag a mag a mag moom Cheikh Kanté ñaari euh, tonu jën la leen jox pour ñu toggal ceebu jënu Casamance président nan la ceeb boobu euh, président lekkee ko tey di ceebu Casamance ndax moo dàq ceebu waalo nañ ci xam dara ñu seeti Farba Ngom ak président de la République ci ceeb boobu. assalamu aleykum bandiraɓe salminima mbo wondi fof winde mum yettode mum xaaram pustu waaye kam li ma leen bëgg a am na koo xamante ne dafa jaawale sama sant wala mu def Farba Ngom mu Farba Senghor waaye dootu ko dolli de xam ne yoo xamante ne du ko foytu du ko caakaane kay noonu te ci kanamu lamtooru buru gede laa ko laa janne na ko hey gannaaw si tey bu mu wakkati Ngom Senghor sant Ngom Haalpulaar Tukulóor kay noonu lamtooru buru gede bismillah lamtoor buur geede tukuloor ala kay tam sa ya jam way way bi kupol bi kupol rama darik way ya lele lele le pullo ayo lela jërëjëf jërëjëf lele lele le jërëjëf pullo jërëjëf jërëjëf den yo koy boni mbaalu curo caar bu ne na gépp loo alla rokkinam dem nga fulaar kay ko dem nga alla gandal fulaar kay gandal lamtooro lamtoor burgede tuglor alla rasin sama waa ji nee naan ku mun bawlu yàq yaw dug dug waagaan kaa waagaan waagaan kuma sanjaan maa ngob moo tax woy boobu la soodu maamu faal woy beneen affaire la bi mu dugu dugu waagaan xaja degi waagaan waagaan kuma sanjaan maa gis na foofu ci pooru pooru na nga fa drago toj na réew kay noon foofu rupuj puuj na kay noon cam foofu nañu torop ndax xam na ni nga koy défilé ko xam nga ni sàllam toor ko mun bawlu yàq yow kay noon ñaar ñaar ñaari gaal nee naa la ñaari gaal yu bees yi kenn ku teg na ci bëtam te wax naa la ba tey nee nañ bët du xëccoo asamaan amul koolal abal moomu kool ku seen ku seen rek di nga xool. dëgg la nee naa kay li ci kanam raw li bët te dama gën nekk nag. mooy paale bi dafa manqué woon cuuraay te gis nga fay sàll mii kay noonu bu nekk pëy boo ne ko coppeet boo ko ci pëy ah. woo ko maa la ah. waaye boo too dangay cuuraay bi day dem teel futur média nee naa bu nekk ci pëy day jilli di gun guni kay noonu fan fu ne mu jaar xam nga ne paale bi na manqué woon na cuuraay kay noonu yow jàmbaar nga de lam toor bur gedi lu xew tey sama karit sama karit baag xanaa da ngay jàpp yaayaay jàmm ci marche bi ci ci défilé bi yaa ngi marqué le pas de un deux ancien ah, combattant ku nakkore lam toro lam toro pour guéde cëm sa discours bu fële nee na torop de yow nee naan ku la kamul nii maa yow ana ko anda ko kamul danga koy woowee maa ngi nuyu population bu Ziguinchor nee na mu ngi nuyu population bu Ziguinchor. di leen xamal ne yoonu Ziguinchor bi dinañ wàññi njëg li waaye nee naa la ku la di ndekki bu nee na di nga nga war koo gam nee na la wàññi nañ indi na gaal yu bees tàkk. te yow Farba na nga yem fi ñu la waxloo ndax cuuraayu président ëpp naa tudd ci ay meeting loolu intimité la. ah man kay président li ma wax dafa ba boyal. dama ne dama ne dama ne loolu du sa warugar. neex na ma trop waaye du lu ñu war a wax ci place publique. kon nag Lamtoor Bour Guédé maa ngi jégalu kay. maa ngi xamal waa Ziguinchor. nee na mu ngi xamal waa Ziguinchor Kasmos. dina am ñaari bateau yoo xam ne benn bi day dem benn bi di dikk dañuy jiwaatloo bu bii demee bii ñëw ci njëg boo xam ne amul fenn mooy batu junni. nee na dina ni ñaari bateau yoo xamante ne bu nii la ñuy defante ci yoonu géej aller retour. bii ñooy féewaloo ci diggante Sokone ak Wack Ngouna ci góor boobu la ñuy dajante te paas bi junni la. xam nga loolu damay bañ sama mbokku kal séeréer yi. nee na day bañ ñi nga xamante ne ñooy séeréer yi kay noonu. nga xam naan président mu ngi teral joolaa yi. naan président mu ngi teral joolaa yi ba pare bàyyi leen. ndax joolaa musul gis raay waaye joolaa dina gis raay ndax train bi dina bàyyi ko Tambacounda dugg Ziguinchor. waay waay waay waay waay loolu nag a gis mooy bi nga ne mooy am ñaar yu daw nee na dina ko jàllale ba nga xamante mooy yegg Casamance ci joolaa su ko defee ñu am mbégte ak contentement ndax dem beeg dikk bi bu yombee énergie dina mën a am ndax fii ci Casamance ku fi tabax hôtel doo fay taxe dinañ la wàññil njëg bi nga xam ne moom mooy njëgu tabax bi ba nga xam ne di nga mën a tabaxal Ziguinchor mu héberger ci ay hôtel yoo xam ne ku taxaw xam ne ne lii dafa yanj nee na mu ngi am mbégte ak contentement bu baax ci bi ngay wax nee na fan yi néew dina jël états ko Casamance jógul Casamance yóbbu ko États-Unis ñu weccoo. waxloo ma lu ma la waxal bul ma dégloo loo xam ne ne dégloo ma ko population Casamance dama ne oto raay Joola musul gis raay. musul am kay. waaye dinañu gis raay dama ko wax ci kaf ak fo waaye xam nañ ne raay bi Tambacounda la yemoon jaar na Fatick ndax séeréer xam na raay. waaye joolaa moom musul xam raay ak soosee kon dañ ko fexe ba indi ko ba dellu wax lañ la wax loo maa ngi jégalu monsieur président waaye nee na kon joolaay na ngeen fexe xupp seeni bon ngeen ko kujj ta xamante ne raay dina leen ko indil ba biir Casamance jàll bi njoona jàll Sédhiou Pakaaw Mampalaago euh, Gumel ba Sanca ba noor dina ko indi fay nee nañ ko dëj ci boor esat ba maa ngi dégg ñuy wax ne ne ceebu wàllo d'accord waaye ceebu Casamance ceebu wàllo dàqu ko ndax ceebu Casamance tamit nekk na ceeb boo xam ne dafa riche maa ngi gis ci bi may dugg si ci banderole yi ñu bind bienvenue monsieur le président pour découvrir les plats casacé les plats du sud dale ko ci broxé ak sebon ak bëgëj maram bi nga xam ne bu ko defaree ba def ko piigalu kaani ba def ci limon paccal ko mu ne taj ba ma dank dankaat sarax sarax le naan soow daale fudd yeewu xam ne Sénégal day émerger nee na kay bu muy dugg si ci biir Casamance bi mu rombee bi mu yegg ci pont wu Tooboor jóge pont wu Tooboor jàll pont wu Aline Sitoé Diatta avant mu wàcc mu ngi gis femme yi ñu ngi jël foofu ak ceeb bi nga xamante ne mooy ceeb Casamance boole ko bëgg a ju Kouthia ko riic te xam naa ne bu ko jógee fay lam fay sàll dina ko dina ko def na nga xamante ne noonu lañ ko bëggee kay. kon dañuy toog. xaar teranga bi nga xam ne moom la population Casamance togg di jigéen ñi nga xam ne nekk ci Casamance yàkkal ñu ko ñu mën a déguster su ko defee ñu subventionné ceebu Casamance bi xool li lu muy saf ndax musuma koo lekk dama koy dëgg waaye xam naa ne la muy saf ko ko ma ci ko xam ndax marem na sénégalais yi xam ne ne loxom saf na loxom set na ni la cuuraay bi xeeñee ba nga wax ko ndax xam nga ne palais mustaxeen cuuraay ah, déet déet président nag man affaire kamatuma dara yow yaa ngi bañ ma wax cuuraay bi mu ngi gillee yaa ngi ko def yi palais mu ngi gillee ba gillee ba futur média la nijaay. Farba s'il te plaît. nee na ni ceebu waalo amee noonu la ceebu Casamance amee. ñoom dëgg naa ko dëgg naa ko j'ai servi ici liggéey xam naa fa. war a ko a maa ngi remercier maa ngi remercier population. bu Ziguinchor ci ceeb bu yànj bi nga xam ne weex na tàll macha allah. di mboroxe mbay mi sax dafa ceeb bi. door buur gerte man tamit rek su naa ba set. ah Farba waa acca lam tooro farba ci am tuuti ah farba neex na waaw nee na kay président déedéet booy dafa am kaani pièce bi gis naa ko kay boobu dafa am kaani pièce bi nga jël dank bugguma ko jox nag li nga def ni farba sa bopp kaay ndax lam tooro nag bii di nga bàyyi ma ñamtu de di nga bàyyi ma ñamtu nag lam tooro président di nga bàyyi ma ñamtu sécurité di nga bàyyi ma ñam ci nag di nga bàyyi ma ñam ci nag dam toog billaay di nga bàyyi ma ñam ci di nga di nga bàyyi ma ñam ci de boor di nga bàyyi ma ñam ci de benn dab genn bàyyi ma ñam bu yaboo nag waaye am naa ci benn tibb de am naa ci benn tibb bi yéen du ma bàyyi mu jàll sécurité ak sagarate laa ci waaye fay lam toor nee naa bu ma dem toon nii dina ko taal dina ko fay moom kay dàmm na koo taal di ko fay président xool sa kanam ñu ngi lay indi leen saako xool